ñuy naa ñëpp fii laay tàmbale géen ci seen xuufu de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan moxle xew ci réew mi sunu gaal yëgle kaay gi waaw da ngay seet rek xoolal ma ki nga xamante ni dafa dëkkee xiifal ak mar maanaam gréew danaa fay yëgle kaay gi ba far feebar fa libération ni ma Pape Alé Niang nga xamante ni moom la ñu làq jant bi fi mu toll nii tembe dem na ba amatul doole ju mu toogee ca kaso ba mujj nañu ko évacuer moom mi nga xamante ni moom la ñu téye ci kaso bi mu jàpp ñu benn solution képp rek dong laa muy gréew dalaa fee tax mu toog lànk téye biiram ni dara du ci dugg aw ñam du ci dugg feebar dem ba amatul kàttan gu ko tee yëgle kaay gi ñu évacué ko ca hôpital principal libération ni ma moom pabaale ñaak ay fi mu toll nii tembe mi ngi ci état bu critique waaye ka nekk ca état bu xamul nu mu caa génnee ci jamono ji ñu toll nii tembe kooko kunkaande lay wuyoo kunkaande mi ni wondee géej gi cay jamono génn ca xawma nan laa génn ci problème bii mu duggati ci ga ñaalab garde corps amoroo ba woon yëgle kaay gi nee Amadou Juldé Diallo ñu gën da ngay seet lii rek fi mu toll nii tembe ba du leen dara dara lu dul wàllum faux billets xaalis bu bon bu bon a bon xoolal ma kii li mu naral rek mook waayam ji di wóoju turu Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci sant yàlla ay cey boo liggéey yàlla de am na neneen nees koy sante nu dul nii ñàkk doy lu tax mun ñu naranoo jël lu tolloog sept millions yëgle kaay gi bëgg koo transformé en sept cent millions faux billets waaw billet noir lañ ko bëgg a def sept millions la danañu am yu baax bëgg koo def sept cent ba tey ñay jàmbaar ci réew mi di waa douane jàppati nan cocaïne yëgle kaay gi ne lu tolloog 30 boulettes la nag jàpp ko fi toll ni tembe kookee di wóoy ci turu Boaro ak nga xamante ni moo di Souleymane gëm ñoom ñëpp yóbbu nañ leen garda wi wala ko mbii mi de leptoo faytoo fii ci askanu sunu gaal kay kuy def lu ñaaw jàpp ni duñ la ngoy ay buñ la ngoyee ndugg siinay sa kër l'observateur ni ma kaay xool kaay xool ñaari malien yi lañ leen dafa yéeme te doy waar ñoom ñaar day ca ginnaaw raay ñoom waay da seet lii rek fii de la réew mi toll ay samba booyee leen tee di sëgg ci ñoom di sim seen mare ngaaññi ca kastéral leen fa guddik lëmm l'observateur ni ma kaay nappkat bi de yëkkati na ay kàddu wax la nga xamante ni moom la gis ca géej ga mu yéeme te doy moom day na ma ko dippee moo di un monstre avec un corps de bébé maanaam benn mbir mu doy waar mu rëy mu ngànd moo xamante ne mu liir la yor yëgle kaay gi ne ay loxo yu rëy rëy rëy poitrine bu rëy dib dënn tànkee nag dayo ba kenn ñooy gis lu ne de ba noppi nappkat baa nga naan waaye tamit gis naa li nga xamante moo di ab lumière bu weex tàll damaa foogoon ni sax ay malaaka la tey ñi jëm ca géej ga lu ne la gis geesu gis leen ne pendant yëglekaay gi di fësal ak di xamal nataalum Ousmane Sonko yëglekaay gi ne moom day ma nga naan le seul républicain dans ce pays c'est le peuple Sénégal moom kay fu sol ni tembe donc la leen Ousmane Sonko di fësal ak di xamal moo di dañuy muy casserole nga génne Ousmane Sonko ne invité na askanu sunu gaal gépp seeni daje nag dara waralu ko lu dul ñaqarlu ñaawlu li nga xamante moo ne ci réew mi rawatina wàllum foo covid gilee ni mu demee tax mu woote mobilisation bu réy moom Ousmane Sonko concert de casserole rassemblement revue de yi suuro ko xamle les éco yëgle kay jox kàddu Ousmane Sonko mu wax ci wàllum rapport de la cour des comptes gilee gestion des fonds covid 19 Sonko day cité boobee woo mboole seen askanu sunu gaal ngir nu wàcc tali yi ngir nu wàcc mbedd mi niki aljuma ak jàmm ak salaam giinu jëm manifesté wu wane seen bopp foog su pop yëgle kaay jox kàddu Mamadou Niang coordinateur alxadmiya moom day nee ñun day préféré nañu wax jërëjëfe Serigne Touba ak génn ci mbedd yi tàccoo ko fengalee ak diri yëgle bi ne moom la mu fësal xam la ko mooy ak lu mu mën a doon wax jërëjëfe Serigne Touba da koo gënal ah, li ëpp ci waa Tambacounda de yëgle kaay gi ne fi toll ni tembe ña ngay sàpp dëggi ndaat saay kontaan lool ci njiitum réew mi président maison de la femme manikaay moo xala ca lampadaire ya 434 yëglekaay gi ne 13 kilomètres de réseau d' assainissement des eaux pluviales 15 kilomètres de voirie 9 éclairé assainier le quotidien yëglekaay ne ma moo taxit ca Tambacounda mbooloo mu takku fatt sare ca génn ànd ak moom yëglekaay gi ne di ko tàccu di ko jaajëfal feesoon del la wax foo sànni mbatt mu takk waa Tambacounda ni ko yaafi te mooy quotidien yëglekaay ni ma waa Tamba dañoo mel discours bu neex loolu la am kay ci région orientale bi le moom njiitum réew mi président Macky Sall ndax waa Tamba gépp a génn ànd ak moom njiitum réew mi président Macky Sall a mandat yow lanu ko yéene ñetta ku jëkk politique gën ni ko mukk yëgle gi ne xoolal ma Xaadim Bamba Jaañ mi yëgle bi ne wax na ci wàllum troisième mandat bi nee bu ñu jël dëkk bi bi di réew mi askanu sunu gaal di ko transformer en or wala argent peuple bi moom nangootun wal fajri quotidien yëgle kaay jox kaddu Aysata moom la mu fësal xam la ko moo di ci um du juridique du dara lu dul mathématique nanu ko calculer rek xool xawma dina am troisième mandat am lu ci am ba des daal njiitum réew mi moom day moom tàmbali na campagne ca Tambacounda mbooloo mu bari fekki ko stade yëgle ni ma mbooloo mu bari mooy xaar retouram génnee ñu koy xaar fii ak ndorteelu février gi Chelsea di équipe bu Edouard Mendy Kalidou Koulibaly gi niki tey ji la ñu fa séene football à partir de 17h30 da ko yëgle kaay ni ma Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise football ak Aliou Cissé fa séene nanoo gunge gaynde yi ca CAN ba tribune sport yëgle kaay dikk ak ñun ci lamb yi derby ji ci diggante Balla Gaye 2 Boy Niang 2 cey open press Boy Niang 2 ba moom Boy Niang 2 day wax na ca Alassane Djigo a comme combat njaar ndéem la <laughs> sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a doon déglu seen revue de presse wolof ak faal Damel jaa ngeen jëf jërë jëf jaa ngeen jëf mbokk yee xarit yeeg dëkkandoo yi fu ngeen mën a ne ci biir réew bitim réew di ñu teewlu saa su nekk ñu lay ti tiitaroo yéen itam di leen jox seen wàcc waaye di leen kontaane itam bu baax a baax a baax a baax di leen wax ni rek euh, doolee jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen ñi ñuy safoo ak di ñu tiitaroo saa su nekk di ñu teewlu ci revue de presse bi yéen la ba tax na nag faw ñu leen di bëggee eh, faaw ñu leen di bëggee di leen jox seen wàccuwaay café gi nag tey dañ koy naan ak ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi ñuy teewlu ci réew mi di leen teewlu ca bitim réew itam fu ngeen mën a nekk rek bëgg nañ leen waaw ay doom ñoom Aboubacar Daabo ñoom sama xarit bi Aminar Ndiaye Mbacke ah borom italiano ñoom ah euh, Pulo sama xarit sama doomu ndey ñoom ah Xaadim euh, Moustapha euh, borom borom borom borom États-Unis d'Amérique sama xarit ah bëgg waa Gosaas waa Pirum Ndëri waa Cees Kaay Mbuur Kaolack Ndangaan Matam Saint-Louis ba ci Kicoor bàyyiwuma kenn. mbokk yi nag may bëggee group whatsapp yi ñuy partagé yëpp di wax ni gars yi ñu ngi félicité bu baax a baax les icônes ah, yi nga xamante ni sargal nañ leen ca Gosaas mbokk yi nag le 30 incha allah waaw kay le 30 waa Thiès info fa sargal les icônes de Thiès nuit de l' internet mbokk yi na ko ñëpp waajal ca same Sams Prestige la oxo oh, oh, dina neex dina yëngu ay ca ma nuyu nag jibi baa bu baax a baax nuy a baax nuyu Aboubacar Daabo sama xarit pour loo kenn moom ci réew mi Cheikh Omar maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Pape Lo di nuyu Mamadou Sam euh, ma Diouf itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ma bi liggéey da am kunta sama xarit la Mor Seck également Mor Seck bëgg naa ko bu baax a baax mu ne ma faal Sénégal moo neex xamoo ci dara sax sama waa ji ni nga ko waxee Mamadou Touré maa ngi koy nuyu di nuyu Mamadou Sam di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi nuy teewlu euh, di wax ni gars yi di leen commenté di leen commenté may gis seen tur di leen tudd ndax bu ma sañoon képp ku ma déglu ma xeli la kafe nga naan naana naana naana naan ba simbu leexu ndax man ak man yéen laa am ayca mi ngi noonu doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen la ayca mi ngi noonu kon mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi xanaa ñu jox leen dig daje rek ba suba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.